dëgg yàlla góor bu baax kon El Hadj Mor Diop ñu ngi lay jëmbalaat mbir mi foofu fu la neex rek maanaam koo kii rek nga yaa ngi fi kilifa diine yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi tam ñu ngi fi comme ni ñu ko waxee commencé ko ci son excellence premier ministre d' accord ñun ñoo ko déggandoo gis ngeen euh, témoignage euh, monsieur Abdoulaye Wilane jot a def euh, ci kooku di Ousmane Tanor Dieng ginnaaw mu laa adduna am na tamit yeneen autorité yoo xamante ne ñu ngi fi ñina leen jéem tàllal suñu micro ñoom tamit taataan ci ñoom ay quelques témoignages lu jëmee ci kooku mooy Iba Der jàng xappu bi euh, tey mu am jàngal ñu xam na bi wala nga xool ki la neex nga jox ko bu jàng xapp euh, imam Mansour Gueye moom mooy imam juma liberté tey ah parle à la famille d'abord s'il vous plaît Ah, nous sommes avec le ministre Serigne Mbaye Thiam voilà xanaa jéem a tàllal micro comme ça mu jéem def euh, quelques témoignages. Euh, prendre part à levée du corps du professeur Iba Ter Thiam. Je peux plus d'un titre. Au plan familial, Ibader Thiam était un ami à un de mes oncles, petit frère de mon papa, Elhaj Mass Thiam. Ibader Thiam aussi était un homme politique euh, du Sénégal qui a marqué l'histoire politique du Sénégal, l'histoire syndicale du Sénégal. Il était aussi un fervent musulman. En ma qualité de musulman, Je peux donc venir prendre à sa levée du Mais il a aussi été mon prédécesseur au ministère de l'Éducation nationale. Et Dieu a fait que la dernière cérémonie de distribution des prix du concours général euh, à laquelle j'ai pris part en tant que ministre en 2018, le chef de l'État, le président Macky Sall, en avait fait le parrain de cette cérémonie. C'est dire que c'est quelqu'un qui peut être donné en exemple à la jeunesse du point de vue de son abnégation dans la recherche du savoir, de, du savoir encyclopédique qu'il avait, du service qu'il a rendu à son pays, euh, dans tous les aspects de la vie. En tant que euh, musulman, les actes de charité qu'il faisait, de protection des démunis, en tant que syndicaliste, le combat qu'il a mené pour le mieux-être des travailleurs et en tant que aussi homme politique, mais aussi en tant qu'intellectuel. Euh, sa dimension dépasse le Sénégal et embrasse euh, euh tous les savoirs. Euh, sa dernière œuvre, qui était l'œuvre la plus importante, une des œuvres les plus importantes, l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Donc je suis venu lui rendre hommage et, et témoigner Euh, de, de, ce présenter les à toute sa famille et à dama wax rek ne tànk yi ma fi mën a indi bari na Iba Der sama xaritu rakku papa la woon ñuy wax ko El Hadj Mas Thiam ma xamoon seen diggante tànk yooyu mën na ma fee indi ah, ci taxawaayu homme politique am tànk boobu aussi mën na ma fee indi ndaxte ñu ngi bokkoon langu politique yi ci taxawaayu syndicaliste bi mu doonoon tamit ak taxawaayu jullit àqan bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci moom mu doon ko waaye tamit Iba Der moo ma jiitu ci ministère éducation nationale def fa liggéey bu rëy boo xam ne bii taarixu Sénégal def ko jàpp kon te bi ma nekkee ministre éducation nationale cérémonie distribution concours général bi mujj bi ma marsa bi ma fekkee en tant que ministre président Macky Sall moom la tànnoon mu nekk parrain parrain nag dafa nekk dañ ko defoon kon rayukaay pour élèves yi def ko rayukaay pour jàngalekat yi donc looloo tax ma teew fi tey pour jaale famille am yëpp bokk naxar bi ak ñoom won nañ leen ñu ngi taxaw ci seen wet euh, di ñaan yàlla mu jéggal ko ay rëq-rëqam yàlla xare ko àjjana yàlla euh, uutu ko ci njabootam Euh, fi mu féete woon njaboot tam yëpp yàlla féete leen fa ñoom tamit fi ñu ko féete woon yàlla fete ko fa waaw ndaxte moom euh, euh, borom xam-xam bu mag la woon boo xam ne bi àddina yëpp ko na woon mu nekk ci mbirum histoire mu def ci liggéey bu am solo fii ci senegal liggéey bi nga xam ne moom la fi mujjee sumb mooy bind taarixu senegal mooy histoire u Sénégal bokk ay borom xam-xam te defe naa ne loolu ñu doon liggéey dañu nekk di ko continuer. ok ñun ñoo ko déggandoo euh, gis ngeen euh, témoignage euh, monsieur le ministre Mbaye Thiam mu jot a def kooku ci mooy Iba Der Thiam. le grand tome boo xamante ne tey Sénégal yëpp a ñàkk wala waxuma Sénégal yëpp presque àdduna bi yëpp a ñàkk c'est le monde entier moom moo ñàkk moo tax tey ji euh, voilà dañuy xaar léegi ñu jublu ci prière euh, mortuaire bi bu ko defee incha allah mu jéem ko jébal incha allah boromam foofu lee ci almeeri Yoff bu soobee yàlla السنغال وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه آمين وحبيبنا وشفيعنا وامين ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم امين ولارواح ابائه وامهاته وازواجه وذرياته واصحابه امين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين امين والى ارواح جميع الانبياء والاولياء والمرسلين والى ارواح ابائنا وامهاتنا واخواننا واصدقائنا خاصه وإلى روح عبدك الحاج بدر الشام آمين اللهم اغفر لنا وله وارحمنا وارحمه آمين ومن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته آمين كان محسنا فزد بإحسانه يا رب اللهم أسكنه في عليين بجوارك آمين يا رب العالمين آمين الروح والريحان ومأوى المقربين آمين يا رب العالمين أوفي اجعل ثواب قراءتنا آمين يا رب آمين من القرآن الكريم اجعلها رحمة ومغفرة ونورا بروح عبدك الحاج بدر آمين يا رب العالمين لنا وارحمنا وارحمه آمين اجعله كذلك آمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين بحرمة القرآن الكريم وبسوره وبآله وبكلماته آمين وبحمده وبأنواره وبركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين يا رب العالمين ناصر الحق بالحق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم المحبة والمعرفة في أراضنا في أراضنا في الجنة وهو وسلم عليه سلاما تاما وعلى اله حق قدره وقدار العظيم ولا تنته لنا بها ابواب الرضا والعزات والخيرات والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والشقاوه والضلاله والمضره والتعصيب تكون لنا بها وليا ونصيرا امين انت ولينا ومولينا فنعم المولى ونعم النصير امين يا رب العالمين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 حسن الله عزاءكم وألهمكم الصبر وقبل الموتنا وإليه sëriñ bi nee na mi ngi leen koy jaale nee na jaale bi mi ngi jiit réew mi ndax ki nga xam ne moom la ak ñi mu àndal ñëpp nee na mi koy jaale it njabootam gépp di ko jeex imaam ratib bi ak mbooleem ahimma yi ak seeni maamam yëpp waaye tamit mi koy jaale mbokk jullit yëpp nee na nga xam ne dina gën cam dénkaane woon na ko nee na dëgg ko ni moom tey ñu ko ko dàq rek ci nga fi nekk ñu ko gën a xamit bu fekkee njàng rek moo taxoon nga jóg tiitër la woon ci wàllu kuma euh, bi ma yëgee xibaar bi li ma njëkk a xalaat mooy relation yi nga xam ne ay maamam yu góor amoon nañ ko ak sama maam yu góor ndax ñun ñi nga xam ne dañuy dëppee Kaffrine ñuy ndaw kundaa yi ngayeen yi bu ñuy installé Mbamba googu ñu dëkk pays ba fa mu ne maamu Iba Der maam Bagal ay toolam la woon moom moo ko may sama maam Bala Ibrahima Ndaw kon relation bi dafa yàgg yàlla def ñuy màgg di màgg ba dugg ci politique ñu ànd ak président Abdoulaye Wade mu am partem mais toute modestie à part bokk naa si ñi nga xam ne ñoo convaincre président Abdoulaye mu dem seeti Iba Der Thiam fii këram boobu ñu ngi waajal élection 2000 rien que pour que ñu mën a ànd pour mën a jàkkaarloo ak pouvoir bi fi nekkoon pour alternance mën a am bi mu amee it gis naa taxawaayam ci wetu président Abdoulaye Wade yi nga xam ne ñëpp dañu àndoon ak président di ko jàppale. te mu def ko ak abnégation dévouement à la limite euh, gisoon nañ ci moom koo xam ne nii li ko ñoroon mooy Sénégal ndax wane na ko ci njàngam instituteur la njëkkee bu ko kenn fàtte def na Sénégal Bambey Lambaye Bignona ba ba muy nekk agrégé nekk docteur d'état ñëpp ràññeeku ci xam-xamam bu sell ci wàllu histoire mu dem bay bind lu téere pour histoire générale du Sénégal bi mu participer ci élaborer histoire générale de l'Afrique ak ñoom professeur Kizerbo kon ci wàllam kenn la ci man gisuma ci Sénégal ci ñi nga xam ne dañ seen xam-xam màcc jëm ci histoire ku ci raw Iba Der mais du loolu rek dañ ko war a seedeel lu bari nitu jullit ak xan la Iba Der tous les jours da doon woor man mun naa ko seede bis bu nekk dafay woor Iba Der julli du ko far fu ko julli heure julli fekk mu bàyyi la mu doon def pour jàpp julli buy réunion ministérielle wóor na ma ne yoon yoon génn na conseil des ministres dem di julli ji parce que yoon dab na ko ku mel noonu bu génnee àddina seedeel ko li mu fi nekkee woon ci lu baax engagement am pour le pays te da ko jaral lu nekk nag maa ngi fàttaliku bu ñu nekk assemblée nationale règlement intérieur bu bees bii nga xam ne moom la nit ñuy liggéeyee man ak moom ñu ko tabax te moom moo jiite woon commission bi nga xam ne moo ko doon élaboré yemu ca professeur Iba Der Thiam juboon na jub goo xam ne contrairement à beaucoup d'hommes politiques su ko assemblée yoon naan mission su demee ba ñëw bu fekkee ne frais de mission yi dañ ne koon am nga fa 15 jours su fa defee 12 jours wala 11 jours su ñibbisee dafay dem questure jël xaalis bi delloo ko def ko rapport ne lii laa dépense lii dépensé wu ko loolu yombul ci homme politique yombul ci sénégalais kon ku jub woon aussi lislaam ndax bëgg na ko wala bëgg ko këru diine Sénégal yi koo fi wër lu nekk def na ko fa e, rawatina xam na leen parce que jàng na ñi nga xam ne ñoo jiite diine bi mais li gën a yéeme mooy ndukumaan ngay ñu dëkk ñun amul benn këru diine booy dugg te duñ la magnifier Iba Der Thiam man am naa ko cant bu rëy cant boo xam ne euh, man maa ko xam fi ma koy tibbee mais Sénégal il faut moo ma wax ci tuuti 2001 bu kenn fàtte ni ci la njëkk am mandat parlementaire mais gëm naa ne su fekkoon ne Iba Der jëlul matuwaayam ñëw ànd ak man jàppale ma dugg ci kër yoo xam ne wóoroon na ma ne sama tànk mënu fa dem ndax ay kili kilifa jël alalam séddale ko recevoir nit ñi di waxtaan ak ñoom ba yàlla may ñu ndam ndaw boo xam ne dafa nekkoon surprise ci Sénégal loolu c'est l'œuvre de Der Thiam c'est important que je le rappelle ici parce que nit aussi euh, ku dee da ngay fekki sa bàmmeel yow kese yaa fay nekk te yàlla dina la laaj leen ka nekke woon kon li ñu war a def mooy roy ci moom ci góor góorgóorlu persévérance ndax ku jeggoon instituteur ba mujj nekk nga nekk professeur agrégé ba ñëpp ràññee la sa xam-xam ci wàll wi nga xam ne moom nga jàng loolu xale yi war nañ ko taataan di ko roy mais aussi war nañ taataan roy patriotisme bu ngeen ko seetloo Iba Der à part xeex bi nga xam ne xeex na ko contre Senghor fii ci wàllu politique ak syndical président yi fi nekk ñëpp kenn ku nekk amal na la njëriñ muy président Abdou Diouf nekk na gouvernement am président Ablaye Wade accompagné na ko plusieurs fois convoqué na ko pour def ko ministre d'État dafa bañ xam naa ci dara président Macky Sall bi mu jotee nguur gi waxul ne man de dama nekkoon ak président Macky Sall euh, Abdoulaye Wade jeexal na damay toog déedéet mission bi ko dese ci àddina heureusement yàlla dimbale na ko ak ouverture président Macky Sall ba ñu mën a bind l'histoire général du Sénégal loolu itam dafa bokk ci curriculum bu Iba Der Thiam boo xam ne exception la ndax nag réew yaakaar ne Sénégal dafa war a nekk ay pàcc. ñii dañuy war a far boor bii ñii dañu war a far boor bee ñuy xëccëw moom syncrétisme loolu ci loolu synthèse la woon des divergences donc loolu bis bi tey day baax ñu seede ko magnifier ko ba pare wax askanu Sénégal ñu rendre ko hommage c'est dommage que dañuy xaar ba nit ñi jógee fi ñu door leen defal ay hommage ñi mel ni ba der waroon nañ bi nga xamee ne wàcc na ba nga xam ne nekkatul dara defatul nekkatul député ñu defar ko une journée nationale d'hommage parce que mérité woon na ko gëm naa ne am na ay yu mérité ay journée d'hommage jàpp naa ne loolu moo war a nekk la la la règle ñu xaar ba nit ki jógee fi ay mbokkam rek ñooy dégg baax li ñu koy wax. or moom satisfaction morale bi mu am yóbbuwaale na ko c'est vrai mais ça aurait été plus intéressant que mu am ko fekk mu ngi dund kon daal ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne yàlla dara tëwu ko mu xaral ko aljana parce que ñun ñëpp dañ koy fekki ëllëg mais na ko atte ci yërmandeem pour dugal ko firdawsi bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy waat euh, kaddu yu daal laa doon yëkkati ci turu bépp doomu Kaffrine di ko yëkkati ci trou bépp homme politique sénégalais yi nga xam ne ak ñun ak moom bokkoon nañ collaboration di koy yëkkati ci universitaire yi nga xam ne ñu ngi def département d'histoire parce que ñu bëri xamuñ ne ma nekkoon naa département d'histoire boobu Iba Dar mu nga foo professeur Bathily mu nga fa kon leer na ne sama professeur la bi mu nekkee sama oncle ba pare jërëjëf. am na dootu la jëriñ dara te bokk na ca lu ne araam na yow nga ne dagan na wala lu yàlla ne dagan na nga ne na loolu nag dafa bari ñu koy def léegi fa tabaraka loolu nag di ba dee musu ko def fa tabaraka allahu kon sëñ Diallo kon ñu sa ndigal xibaar waaw ñun ñoo ko déggandoo mooy témoignage euh, bi sëñ bi jot a def euh, gis nañ tamit euh, actuellement lépp loo xamante ne mooy autorité Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi fii ñu ngi fii nii tey jii mooy ñëw maanaam gunge koo xamante ne kii seen nijaay la seen mag la seen xarit la di mooy Iba Der Thiam ci biir loolu tamit am na autorité am la ñu gis ñu mel ni maanaam ñoom sëñ su si Djamil ñu ngi koy seen noon ci biir nit ñi waaw mais xëy na nag accès bi moo xaw a am tuuti jafe-jafe moo tax jotuñu yegg ci moom am na yeneen tamit ñu ngi jot a gis ñoo xamante ne ñii euh, ci ay autorité ñëpp ñu ngi fii nii tey jii bokk nakkaar gi bokk tiis gi xam nañ ni maanaam Sénégal tey jii euh, ñàkk nañ koo xamante ne mooy ku baax ñàkk nañ koo xamante ne mooy nit ku mag ñàkk nañ koo xamante ne ku rëy la ci taarix euh, tey jii Sénégal ñàkk nañ koo xamante ne tey ji monument la waaw euh, ginnaaw loolu tamit nañ jéem xool maanaam euh, rapproché ci yeneen autorité jéem a leen laaj tamit euh, seen gis-gis ak seen témoignage tamit yu bëgg a def ci wàllu maanaam mooy dese tey ji maanaam bu am tey ñett téeméer rek. moom nee na kon ñi ko sëriñ bi waxee na kenn ku nekk rek def ñi téeméeri subhanallahi wa bihamdihi mooy trois cent. Thank you. Thank you. ñu nangu ñaan كمن صباحات وجهك التي لو ظهر في وجودي نسل دبة وجود من حرها وصار ما دام علم وخلق بذكر البراءة والجلالة إحسان يا رب العالمين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أظهر يا رب العالمين أنعمت الحق له ويهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أن تقبل ثوابا قدرا وما صلى ما صلى الله على قدر يا رب العالمين وجهد وكرم فيا كرم وكرم آمين صواب إلى الإحسان بقدرك والجاه والقدر والسر وعظمته آمين يا رب العالمين النذر إذا وتعاليت إلهي من النذر إذا وتقدست إلهي يا رب العالمين كل شيء آمين لا إله إلا أنت يا أكرم الأكرمين والفتار من خيرات ستي ولي آمين يا رب العالمين أنت فعل ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين فاتحة مع صلاة الفاتحين léegi nag mën nañoo génn ci biti. dañ ko tudd defar ba ñu paree. ñu génne ko incha allah.

assistant aujourd'hui à la levée du corps du professeur Iba Thier Il n'est plus à présenter aux Sénégalais, puisque tout le monde connaît son parcours d'intellectuel pur, d'une grande figure de notre pays, un homme de principes de valeurs qui a beaucoup servi à toutes les positions qui lui a été donné d'occuper, tant du point de vue professionnel que politique. Donc c'est aujourd'hui avec tristesse que nous l'allons l'accompagner à sa dernière demeure. Mais c'est la vie qui est ainsi faite. Nous retournerons tous à Dieu un jour. Donc c'est exprimer ma compassion et mes condoléances à sa famille et au peuple sénégalais. waaw professeur Iba Der Thiam moom la ñu ñëw tey di ko gunge ci këram gu mujj du ko xam ne dañu koy wax kan dañu koy présenter sénégalais yi ndax ñëpp xam nañ jaar-jaaram ci wàllu xam-xam ci wàllu jàngale ak ci wàllu politique mu nekkoon nit ku mat nit koo xam ne bind na xam-xam bàyyi fi ñu koy jariñoo dañu koy ñaanal suñu borom teelu teeru ko àjjana ak njegal euh, te ñu yàgg fiit ñu ko ñaanal donc ñu ngi jaale njabootam di jaale sénégalais yi ndaxte ki ñu ñàkk du ko ndaw euh, ku ñëpp ràññee woon la ku amoon njëriñ la ku jullite woon la ku jub la woon yàlla na ko yàlla waa liggéey na fi nag liggéey boo xam ne yàlla moo ko may loolu lay wax bàyyi na fi xam-xam ndaxte bu la yàlla mayee nga jiite histoire écriture bokk ci comité scientifique bu histoire bu Afrique amel nañ ko njukkal goo xam ni lay sunu diine lay sunu taarix lay sunu histoire lay suñu culture. ñun ñoo ko déggandoo euh, témoignage ju ñu jot def fii nii actuellement euh, léegi nag ñu ngi jublu maanaam ji mooy ci prière mortuaire bi bu ko defee incha allah ñu jéem ko koo gunge foofu noonu ci almel yi yoof incha allah bu soobee am Bunu filme. Thank you. Interview waaw ma fàcc bi. Thank you.

waaw kon kon nañ nañ nañ ko defal taxawaay yi pour ñu nañ ko defal taxawaay yi. Seydou. waaw euh, suñu ami internet euh, Dakar Buzz tey jii ñun ñoo ko gisandoo actuellement yéen a ngi seen noonu ci image yi. waaw ci biir loolu. waaw ami internet euh, Dakar Buzz euh, nu ngeen ko waxee léegi ci kàddu ñoo ko gisandoo euh, ñu ngi jégalu tamit si souci technique bu jotoon am léegi. waaw gis nañ euh, tey jii nii euh, uh-huh. mooy Iba Der Thiam moom ngeen di séenante euh, tey ci image nekkoon koo xamante ne mooy un grand homme nekkoon koo xamante ne nit ku baax nekkoon koo xamante ne un monument amin allahuma amin yàlla na yàlla na mun ci biir loolu tamit gis ngeen actuellement jot nañ ko indi ci revers du corps bi ci biir loolu tamit euh, ñu ngi koy fas yéene di ko jullee léegi incha allah bu soobee yàlla euh, bu ko defee tamit euh, fas yéene ko root maanaam foofu ñu mooy almel ca Yoff bu ko defee dañuy dem ci imam Radib bi jéem a déglu maanaam mooy témoignage yi muy def tamit ci kooku nag mooy Iba Der Thiam tey jii loolu rek moo ko soxal mooy témoignage ay wax loolu ko soxal tey jii mooy nañ ko ñaanal di ko témoigner loo xamante ne tamit bu baax. bu dee nag euh, yow mbokk jul yoo xam ne incha allah bu ko defee tamit euh, ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla aree aljanna foofu mu fu mu jëm na ko gënal maa xam tey jii fu mu jógee waaw ñu jéem jël quelques témoignages taataan euh, ay. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amoon nañu sunu mag imaam bu baax bu fi jógee yàlla yàlla yokk leeram am na yóbbante bu ñu bàyyi loolu ñu ngi ko fàttali waxtu wu nekk fa jóge nañu fii mooy kii tëdd fii mënatul baal kenn xaq mënatul baal kenn xaq mënatul baal kenn xaq ñu ñitul na mën nañ ko baal xàq mu ne ku nekk sa xol. bul jël bul jël ko bi ak lii tëdd baal naa ko yal na ko yàlla baal yal na ko yàlla jëkkal kon li def mooy waaw waaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw waaw waaw waaw kon

ba tey bi sama cousin mu leen di dimbale lenn mooy kii semaine bi daanaka ba deer tontu Assane di président waxee ne moom na ñëw di ba deer njabootam nag muy njabootu sama tante Ndiaye si nit waxee bakkat bu ma yëkkatee sama kaddu ci mbooloo nga may wax li ma xam kii la bokkal benn ndey benn ndey kii la ko bokk imaam Diop ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant léegi dama doon ñaan imaam ñu tëre léegi nii ginnaaw bu ma premier ministre waxee ba pare te ñu nuyu ci xam ne mooy président assemblée nationale gërëm imaam yi fi nekk yëpp ñu jox ci xam ne mooy akam al aqrabul awla ku gën a jege gën a yey su paree nag

mooy balu ak ñëpp tey président de la république président Macky Sall mooy yooyu ci suñu nijaay ji tëdd fii te moo war a delloo suñu borom inna sama rôle man ñi ko jàpp sànq andi ko nga xam ne ñëpp ay jarbaatam lañ ñun man ki rôle boobu mooy sama rôle ci ñiy jàpp tey sama nijaay ba deer laa a bokk ndax kee taxaw jàpp ko papaam sama mag yaay la donc dama fees ak cër ñuy andi jaaru président Macky Sall di ko teg ci loxo kii nga xam ne mooy kilifa suñu nijaay di Serigne Mor Diop nga xam ne moom la joxoon boppam di ko teg ci loxo it suñu tante ci kanam dinañ ko wax ca kër ga suñu tante Mariama Touré di ko teg ci loxo doomu sama nijaay yi doomu bu jigéen na ngi taawam mi nga fee ca gannaaw gisuma Abdou Kader nga xam ne papaam la ko tuddee mu nga France professeur bu mag mais xam naa ne mi ngi ci yoon bu ak seegul euh, ñu koy teg tamit ci Ibrahima Faye ku xam Iba Der xam nga Ibrahima Faye di ko teg ci loxo njaboot gi yëpp Samba Diak ah, samay nijaay lañ waaw tonton Samba moo ma teeru bi ma agsee moom ak euh, tonton Ibader ñoo bokk yaay euh, man dama ne fii laa waroon a nekk ci famille bi jébbal sama nijaay ndax tonton Ibader tonton maam sama maam Abdou Kader a ko jur Abdou Kader ak Yérim ñoo bokk ca góor donc xam naa li ma bokk ki tëdd ndax moom ak sama yaay ah dañu ñoo bokk maam ñoo bokk même maam donc sama nijaay moo gaañ ah, ñu jël jaay di ko jox sama sëriñ di suñu sëriñ di sëriñ Moor Jóob di ñaan sama nijaay ji fi jógee yàlla baal ko ay baxaaram dugal ko biir àjjana te yàlla def na ko dama ci rek wax tuuti ndax président bu ñu yónnee ci suñu ay mbokk euh, imaam wax na ko sànq neneen ci biir wa ma naa na ila bi ma alim na tey bésu defe naa ne seede la suñu yaay yi jullit la bu mag homme de foi et loolu la président wax ndax bari na fu mu jaar ndax bu xam tonton Iba Der xam it nu mu demee ak Pa Omer Seck mi nga xam ne mooy goro président nekk xaritam ñu mës di ànd wama na ila bi ma alim na homme de foi moo tëdd fii di jullit defe naa sëriñam wax na ko sànq dama ci andi rek ma man firnde nekk naa xale sama nijaay nekk fii directeur école normale supérieure sama yaay yónni ma fa juste après timis ma ñëw këram mi ngi dëkkoon soo luggee da ngay dem ba ca pont ba bâtiment ba nekkoon foofa ma ñëw toog juste avant reer fekk tonton lal si jaadaam doog a julli gee yore kurusam teewlu leen waay ma toog fa ñaari waxtu di ko xaar mu sëgg ci kurusam ba mu jógi mu guddi man ma tiit boros nu may ñibbee faanook suñu kër toog xaar mu yore kurusam ba ba mu paree la muy pare ne ma maamel na def ma ne ko sama yaay moom ma yónni commencé bënn sama ay bët après mu jël otoom ñu yónni ñu del posé ma suñu kër jullit ak xan moo tëdd fii ah nekk nit ku endurant nit koo xam ne mën naa muñ am ambition mais ambition saine li ñuy wax endurance jël lépp teg ko suñ borom ah, ndax defe naa wata waasaw bil sabri inna allaha ma sabirin muñ ak endurance defe naa ci qualité jullit la ndax ku tàmbale moniteur de l'enseignement terminé agrégé des universités bokk ci ñi nga xam ne Afrique ñi di gën ràññee ci sa spécialité histoire ba UNESCO tànn la pour ngeen bind histoire générale de l'Afrique ah gàcce ngalaama jàmm jàmbaar nga loolu endurance moo koy andi moo tax it président Macky Sall ko mu bind histoire réew mi te defe naa ne am na tom déjà yu mu ci livré ñu ciy remercier président it ci turu famille bi ci wóolute duñ ko mës jox ah ma yàgg ndax euh, wax naa ko moom suñu nijaay homme de fois homme euh, endurant mais également homme d'espoir pour l'Afrique mm. ndax c'était une fierté pour l'Afrique dañu ne civilisation de l'universel ma ne ki tëdd fii moom c'est de la civilisation de africaine jërë ngeen jëf ñuy sàkkuwaat ñaan ci sëñ Mor ñaanal suñu nijaay jullee ko Euh, yàlla xare ko biir àjjana allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim da ngeen jëf ñoo nekk ci jumaa jëppal imam la dool dool imam moo ko yebal oustaz Ngom moo ñëw teewal imam mu dëkkal moom tam imam la sànni kàddu moom tam bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah ministère bi ñu la sama yéen moom la ñu doon doxalee ngeen teete Mouhamadou Lamine Sané mooy imam wa yaatu Jokalante deuxième service bi si renseignement bi si rajo Dakar moom moom ma wax ne li may jokkal mooy service bi première date yi ñu dalal di ko def ñu moo wax ne waxtaan su ñëwoon dina indi somme boo xam ne. dina ko fekk ba officier ya fa nekk pour ñu taxaw képp koo xam ne bu leen jotee bu nga defoon seen alxuraan dina ñëw dem di fee dara. teere yi am na seen soogam nga xam ne daw naa ñëw tëj moo ko ñu ñoo ko léegi mu ñëw ci këram la ma woo boole ma soo jox ma benn paxe ma def mu yaatu ci tool yoo xam ne tool tasiir la. li ma def fii pour gàttal su ma bëggoon a wax li mu def ci jumaay jokkoon parce que avant avant jumaay ji jumaay ji taw yëpp ñu ngi ci jumaay jokkoon la ñu nekkoon. defe naa bi mu taxawee itam man ak moom fii la ñu defoon xëy na xat moo tax gisaat bi ma fi ci ci jumaa bi laa bokk. jumaa Mouhamadou Moussa nee na li ma saxal ci bàyyi ak li mu li muy wax nii li bett mu ne li wax noppam ne li ma def ak moom ak personnellement ci kanam nee na su ko doon wax ñu commencé def ko ko rek lu wécc daal daa la waaye dafa xool ngir nañ ci xam xool ñu ci gis bopp mu wax ne mu koy eh, jaale waa boppam du ko jaale boppam waaye di ko ñaanal ñaan boo xam ne ci biir xolam la ko tibee man képp la doon ko wax li ma Cheikh ak Ibrahima ak ak euh, Cheikh Lamine Thiam mi taxaw dañu saxal moom nga xam ne weeru koor bu nekk danañu woo fii jox ñu son weeru tabaski bu ñëw mu jox ñu joon waaye dama doon wax ne indi ñaar fukki junni wala fukki junni ne boo demee nga jël teel jox daara alhaji Cheikh Touré Cheikh Hadi Touré nag ñoom ci daara ba bii moom la def nag ñun kon su ma ko woon di ñëw ci booba dañ ko kenn ka dañoo ñaan ñëpp ñu tegu ci ndigal te mooy gàttal suñu kàddu waaye li li suñu moom Ibrahima Sakho doon wax rek moo am dafa dafa doon wax ne dafa am mbaax mu bon waaye am mbaax mu baax am mbon mu bon ak mbon mu baax boo ko gis ne mbaax mu bon mooy ci baax te ci boppam doon na baax waaye mbaax mu baax mooy ku baax ku ko jege baax mooy Ibadan yàlla xam ne ku ko jege baax mbon mu baax mooy ci bon waaye mbon mu ci boppam doon nañu war na mooy góor bu ko jege bon kon su góor bu baax bi nga xam ne bu ko jege baax la woon kon ñu ngi gàttal suñu kàddu bi di ko jaale ñëpp di ko jaale suñu bopp di ko jaale waa bi di ko jaale suñu bopp di ko xam ne ak sa mën a di ko xam moo ko. waaw mooy ne bu amee douze heures de temps te sàmmatu nee na si Ahmed Tidiane yi bi bi Iba Der dénkaane si Ahmed Tidiane yi moom moo wax ni bépp nit bu faatu mu am fukki waxtu ak ñaar te kenn du nooy ko non on bi moom on bi nee na bu ñu jëlee yéen ba tey te mën na ñëw mën ko waaw su ma nee quatre mille deux cent nag mën nga mën nga ñoom dañu koy jël tànn ko ci bët ba muy wax xam nga xam ne kenn du ñëw kenn kon ñun ci xool yi maa ngi daan sant ñëpp lu jëm ci wàllu jëm ci wàllu alquran lu tax ñu may ko wax ci sànni ndax ci guddi yi tamit مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته boo xam ne naaw na jox na leen cër. président bi dañuy demee le 3 novembre 1986. étudiants yi ñooy yokku réew yu bëri mayoon nañu bi ñu demee ba mu def plus semaine professeur de réew mi ci Sénégal da xamoon lu ci mara waaye yéen yéen a ngi ko jiite woote autorité ne comme suñu kilifa diine yëpp jaar nañu gànnaar wala ñu ci bëri jaar nañu gànnaar ñu doon jëlee suñu doom ñu yóbbu Maroc wala Égypte wala feneen léegi da leen di jël ñoom ñëpp ñu le 3 novembre 1986 69 étudiants te xam nañ ne aw ma ku ma recommandé li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne képp koo xam ne ci woo woo mbir bi bokkoo ci ñun jëm ji daal di sa wax xam-xam ku ma xam ñu bëgg ak ñu ci woon ci bokk ak ñu ci woon nga am recommandation wala nga bokk moom loolu ñoo kon nag professeur Ibadan Thiam te lii ma wax ku ngeen laaj ci ñi demoon le 3 novembre 86 69 étudiants yëpp ñi ñoo ko composé mën naa wax ne bokk na ko ndax ñi santoon Sylla Bousso Mbacke Aydara diggante bi mooy 69 étudiants la 60 yëpp góor lañ leen te ñàkk la sax kon nag li ma ci doon wax bari na wax. yaa baax mu ngi koy yaa baax dafa lay jëmale tam lu mu bëgg waaw waaw baax na nit wax baax na nit wax ba baax comme ni mu. bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla. sant bi ñu fi nekk ñëpp. sant bi ñu naan wax bi nag ngeen gisee ba léegi ma taxaw ci dëgg jarbaatam di premier ministre. dina dina ci am. bay am ci droit. parce que nag nekk rek taxul nga ne lépp ñàkk loolu moo tax kon mu tuddee parce que tey su fekkoon ne man de teewoon ak doomam baaxul maa koy comme koy jël liggéey taw lépp fekk na xam naa lépp daal di naan parce que li ma def daal amul benn rek man ñoo bokk ndey ñaar te yàlla yëf ñaar rek ñoo def bokk par par bopp loolu ñoom ñii mooy di def gannaaw yàlla dina ci. mais am na bu baax a baax li nga gën a dugg xam ne ne man li nga defar sax kenn xamul waaye dafa loo xam ne nag su amee ñu fekk lu ma ñëw li nga xam ne tool bi ko ba bëggoon ma ne maa ngi ni maa jël yëpp su ma ko defee boobu du ma ko fay. léegi nag sama diggante ak doomam yàlla yàlla boo xam xam naa ne xam na xam naa te lu baax ku leen tane ku leen ko tudd te kenn ku moo àtt ci dara donc ba pare ñu wax ne fàcc muy man xaw ma soxla ñu ko taxaw ñu ma defal ma ñu ko taxaw ne ma may waaye nag lu ma defal ay doomu aadama moom lañ waaye nag su ma si doon xëccoo di xàncoo ba tey ñu ne rek ñu ngi teg fay bi daf koy def ni su ma ñëwee dëgg damay mel ni gaañ bi su ñu fekk ma fan nga ko fan nga ko bëgg yaay loolu ñu yore premier bi nga xam ne délégation sama ko ko toj dama bëggoon nag ñu ma ko joxe ñaan ma sëriñ moo julleeku sama ruq yi nga koy wax mun naa wax dégg waaye dinaa jël dara waxta moom ko waxta moom yi dañuy fay na ministre ba ministre bi ñu ngi ministre Abdoulaye Diop ministre de la Dicapé Pape Sall Sall Mbaye Diop ak bi Çankaya konularını tutabildim. Ama ben donc loolu yëpp ñu jël di wax di wax di wax di jógee ndax moom xam na loo xam ne bëggoon na ko dégg nga te bëggul kenn di ko dama leen di ñaan su su paree nag dem wax ji jeex na loolu laa leen di def jox leen ko sëriñ bi. waaw ñu kon ñu ñu defal taxawaay bi ñu defal taxawaay bi ñu jëm ci ñaanal ko. waaw xam naa ne moom am na solo la moom ñu ngi ci loolu. ba ñu waxee woon nag kon naa ci ñaanal ko balaa sori. ñu ngi ci kàttan. ñoom ñooy jàll Fatou ndax Fatou déglu naa ne bokk na ci wala bokk. su dee nee naa lool sax. su dee si sama bopp sama bopp sama bopp Fatou yi ñu ko baax. kon naa ko xamante bu njëkk bi dañu jàll Fatou ñaar ko ba ñaar dañu jàll Fatou Ibrahima yëpp mën na doon ci jàll Fatou Fatou. ñooñu ko doon rek ko moom ñoom ñoo ko seen ñoo ko moom ak ñu ci taw rek. li ma ko xam waxoon Oh. Absage.

Habib Habib dem bi ko dem bi ko taw ay ñëw lan lan lan imam bi war a dem yóbbu ko bi ñu la du imam bi imam bi ñu ci dara taxaw

Comme vous avez dit de quitter. Comment les sons يا عم سيدي يا عم دول يا عم سيدي

dem daan organiser ay conférence bi ma banque islamique développement yónnee pour ma assister ma représenter que à la conférence de 1989 organisée par les Moustarchidines et les Moustarchidates bi may def sama conférence Iba dafa ne may leen ma ma président ko ndax mën naa seede si moom bi nga xam ne yéen ñëpp kenn mënu ko seede si donc man loolu laa am si moom euh, euh, relation intellectuelle complicité intellectuelle daf ma may benn livre qui s'appelle la révolution de 1914 ma leen di ñaan yéen ñoom na ngeen ko jënd. incha allah mu ñëw fekk ma assemblée nationale nous étions tous les deux députés fi ma toog mun ma livre bii laa jënd na nga ko lire mu dédicacé ma ko ma dem a Washington sam benn xarit euh, bu nekk euh, Georgetown University Catherine Marshall mu gis ko rek dof si ni ma kii du dellu Sénégal bi mu demee bi ma ñëwee nag temps yi rek y a deux mois ma yebal fay bii Ibrahima fay bii. ma woo ko mu daj si Ibrahima ma ne ko waxal ma grand bi ne que livre bi ma joxoon eh, am na ko ko nangu si man mun man dinaa ko joxaat beneen xam nga lan la bind si dédicace bi mhm. dafa ni mon marabout mon leader mon collègue à l'Assemblée nationale kon nag am nañu yaakaar yal na yàlla def mu boot loxoom ni ko yàlla digle si alxuraan wujuhun yawma izin naa'ima li sa'yiha raadiya في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة yal na ko yàlla defal yaakaar boobu yàlla bu mu tas dama bëgg nag mu nekk un exemple pour l'ensemble de l'élite du Sénégal il y a eu l'élite prédatrice qui depuis l'indépendance trahit la cause de ce peuple-là moom il a toujours été fidèle il a très vite compris ce dont le peuple avait besoin. Et il a campé sur un aspect important de ce dont le peuple a besoin pour son développement, mooy lan mooy le développement du capital humain. Toute sa vie, il l'a consacré au développement du capital humain. ñu am nag lu nga xam ni daf nu naqari rek mais yàlla lu ko neex mu def fa'aalun limaa yuriid waaw fa'aalun limaa yuriid yàlla bi muy bind Iba Der tàgguwunu kon nag la jël si yàlla dafa nekk buur nekk borom waaye borom la nekk buur li ñuy naqari nag mooy que li mu sumboon mooy l'histoire générale du Sénégal et moi je ne connais pas au Sénégal une autre personne capable de mener ce bateau jusqu'au port c'était Ibader yàlla nag lu nekk mën na ko jël na Ibader yóbbu na yan nag si wutal ko nga xam ni kii mën na continuer euh, ba terminer li nga xam ni nii suñu nag li koy ñaanal rek yàlla gàttanu ko euh, si àjjana euh, jox ko lépp lu nga xam ni li liggéey na ko fii mu fay ko.